yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV ñu dara ki nga xamante ne moom mooy Prince ko mu nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla nee naa la miin ngeen ko mais xam naa loolu ngeen ko miinewul rek euh, jël ki bi xam nga dem joo kii te tamit c'est normal ndax daf koo doon mais Prince buñ jógee ci loolu ñu gis ni amoon na ay na yoo xamante ne moo nekkoon sa kanam mm-hmm. ñu gis ni corona bi moom mooy yàq lépp di ñaan yàlla mu jóge fi su ma juumul mu ja ak caat euh, nga doon préparé amoon nga tamit armée ak ki nga xam te ne moom mooy fëgg la ak yeneen du journée euh, prince instant bii nii corona bi ñëpp xam nañ ni moom mooy actualité ndax kenn du wax leen lu dul corona bi mais tey euh, journée yooyu noonu est-ce que prince ba léegi mi ngi ci waaw bien sûr xam nga tey soo defee dara joxe sa avance comprend nga def sa promotion ba mu des ay fan yàlla weddi da ngay sant mu ñëwee nag on l'a accueilli avec on a même man dama sax si bi affaire bi amee man dama jël sax comme bay fàtte ko man lu ma concentré wu lu ma focus woon mooy nu ñuy def ba feebar bi bañ a tas suñu réew bi ah comprendre parce que fii ñi am ñoo ëpp fuuf ñi amul ñi amul ñoo bëri. ñi amul nag seen dund rek coono la su ci feebar tegoo fu ñu jëm. foog nit yi di xool loolu. ñi am ñoo ëpp. te ñi am bu dee dañoo am problème pour xeex feebar bi pour ñoom mucc si mais ñi amul ñi amul fu ñu fanaan ñi nga xamante ne bu tawee seen kër yi dafay taa xam nga ñooñu fu ndox fu a jaar fu nekk rek ngelaw mën na faa jaar te feebar la boo xamante ne mën na dem ci poussière ki ko kii mën na craché ngelaw yóbbu ko nga ku mënul tëj ndox mm-hmm. am na ñoo xam ne ci zinc la ñuy fanaan ñuy fanaan ci mbedd bi. ñooñu dañ leen war a xalaat. ndëgam Europe nga xamante ne da ngay def logiciel sa téléphone mu wane fi nga jaar yëpp ba su su la dalee ñu mën a xam ne kii jaaroon na fii ak fii ak kii la fa fekkoon kiix kii ñooñu war na leen mën a dal ñu mettre leen en quarantaine amuñu moyen boobu. moo tax tey tubaab yi il voulait que ce cette maladie les occidentaux négatifs quoi ñun ñu ngi baaxul tey il seen. xam nga safa am ñoo xamante ne ay genre femme bi nekk France Marine Le Pen ñooñu suñu sañoon lu bon lu nekk Afrique la jëm te ñoom suñu sañoon l'épicentre de cette maladie serait l'Afrique mm-hmm. mais Dieu n'a pas voulu que ça nous arrive donc ñun nag euh, fagaru moo gën faju mm-hmm. nen fagaru ba loolu bana bañ a am mm, mais lamb maa ngi si lamb yi lamb yi incha allah su corona jeexee 15 jours après ñu tëggu 15 jours après 15 jours après wax naa seex tele bu may liggéeyal mooy Bougane. Hmm. waxtaan nañ ci nee naa ko su corona jeexee ba mu wóor nañu jeex na. Hmm. dimanche bu si topp bu si toppaat ñu tëgg làmb. nga tëgg mujj ak kii. mu jax caat boole ko fëggal ak armée yëpp. benn benn journée. nga pare ci ko pour sénégalais yi génn fekk ñu nekk ñu mu doon ouf de soulagement ñu dellu si waat. Ah, parce que psychologiquement genre feebar yi day jàpp nit yi. nit yi hmm. dañu stressé. koo xamante ne am naa. naa naasam benn grand Assane Pène bi mu takkee jabaram def na 22 ans musul tëdd musul dugg këram 22 heures. Mhm. mais à cause de cette maladie dugg na këram 20 heures. Oh, kon oh. feebar bi am na lu mu kii. Ah, mais am na mais ñaanuñu yàlla lu mel nii di am si àdduna. Mhm. yàlla na fi yem. Mhm. mais itam nit ñi ah lu baax yaa koy lu de. nañ delluwaat delluwaat su yàlla. bàyyi greffage yi bàyyi euh, xeesal geeg yooyu yëpp yàlla bëgg ko. lu yàlla bëggul kañ nañ ko bàyyi saay xam nga nit ki mënoo ne yaa baax wala xam nga ni lépp baax na si yow mais li nga xamante ni nit da si mën a teg bëtam nii teg si loxoom fexeel ba bu ko nit gis si yow nañ fexe ba génn si yooyu génn si yii te xam ne ñun ak ñee bokkuñu tey gis nga ni leen yàlla di reyee ñoom tubaab yi kenn yéenew ko parce que war rak xab karat naa ni baani aadama la yàlla wax donc su demee ba jël lii di ko teg si doomu aadama yi c'est parce que kontaanul nen boolewaat xol yi ñaan. tuubal suñu borom. defaruwaat toogaay defaraat toogaay de. dafa am nag mag yoo xam ne dañ ci nekkoon di wax di ñaan. mais nag mënu mënul éternel de. yëpp dafa ñëwaat ah, day ñëwaat. tey almaxtum waxoon na. nañ sang dëkk bi. waaye àdduna la ñu war a sang. Mhm. corona mënoon naa am ba jeex du am Sénégal parce mag yi defal nañ suñu borom jaamu nañ ko lu waral loolu mun a mm-hmm. nekk. Mm-hmm. mais ñun ñoo ko caaxaane. waaw mm-hmm. ah. nekk seen i vidéo la ñuy indiwaat. waaw kon yàlla moo fi ne quoi. yàlla rek fi ne euh, Prince am na ñu bari ñu naan euh, instant bi euh, Prince est-ce que journée bi du ko yóbbu déwén. parce que non non ñaan corona jeex balaa weeru koor gi di ñëw put bu wow àndu tax corona de <laughs> ah, man commencé naa woor man. yow. commencé naa woor si début mois bi. début mois bi. pour ñaan corona dem rek. te am na ay milliers de gens yu koy def. si mhm. Sénégal parce que fii am na jullit yu baax. Mhm, mhm. am na ñuy jóg guddi di julli. ba fajar. di naafi la di ñaan suñu borom jéggal ñëpp. parce que balaa suy dal du dal suñu bon ñi de. day dalaale réew askan géew yëpp lay topp. xeet guy dund si yonent bi ab yonent bokk si yonent yàlla yi yàlla dafa alak njabootam. alak soxnaam ndax góor jigéen jigéen ñi yéen yéen a dàq snap ay góor jigéen. ku ko snap man sama whatsapp ak lépp ku ma gis nga whatsapp góor jigéen dama lay woo ba nga wax la xamal la ko delete la bokkatoo sama àdduna. ñoom ñooy promouvoir ñoom ñoo leen di encourager. Uh-huh. di sekk ak ñoom ay affaire yooyu la war a bàyyi ñoo leen ni macrowal quoi qu'on dise la vérité ñun jeunes yi ñoo mën a wax yenn yii pour. parce que kilifa yi am na ñuy wax ñu mel ni oustaz Omar Sall. dañuy dénoncer def neen alerte ba sonn. mais ñoom lu ñuy wax du ñu xam yenn fonds fra yi euh, góor jigéen ñi ñu si bëri poog ñu bon ñi. góor jigéen ñi ñoo leen di màkkaroowal góor yu bon yooyu itam di sekk ak góor jigéen yooyu bañ leen di màkkaroowal. ñun tam doy nañ waar man ñooñu ñoom tam ñoom ñoo yem comprend nga yow nga xam ni waa ji góor jigéen la nga nangu mu lay màkkaroo di may gel c'est loolu dafa ñaaw xoolaat leen seen bopp ngeen xalaat yàlla bàmmeel ñett fan yi wallaahi ku ko ku xamul ni ko day am rek lu la neex defal waaye ku si nekk yàlla dina wéy yow àttal say jëf mm-hmm. ba nga foone yow rek la sàkk mm-hmm. message parce que lii mooy so lii moo ñu sonal balaa bi lii kese la du dara. Mm-hmm. message lii moo fi nekk soxorante iñaanante defante lu bon. góor jigéen lesbienne. ay kilifa di nangu sax seeni soxna di doon ay lesbienne ñu koy ñu leen ci encourage di leen ci jàppale ndax alal hmm, drogue bi soo demee jël sa doom yar ko yar boo xamante ne tegoo ko si siraatal mustaqim muy yor xaalis ni mu ko bëggee mais c'est normal après su amee lépp def lépp mais drogue lay uti am na solo ah, message bi am loolu moo fi nekk. Mm-hmm. message bi am jarul ñuy xaar ay ustaas pour communiquer wax li xew de. Mm-hmm. ku nekk mun nga ko def. parce que ustaas yi sax si ñoom am na ñoo xamante ne tegawuñu si siraatal mustaqiim. Mm-hmm. waaw may organiser nuyu du Coran am ñu si gis leneen di si wax leneen. waaw sa nuyu du Coran voilà bëri woon na coow. mais lan moo ko waral. soxor iñaan siis. mais xanaa waxoo ko woon pour lu seen yoon sama diggante sama boroom lu ma siy wax ustaas. yoonu kenn nekk si man lañ doon di ñat alxuraan lañ doon di ñoo ma alxuraan lañ ba yoomee xiyaam. mais yow yaa ko organisé. inna laa ma saabiriina la yàlla wax. yàlla muñkat yi la àndal. maa ngi muñ man. ni yàlla mu ne xaar. man dinaa ko xaaree noonu ba boobu. mais sa bi gars yi bari ne da nga lajj. alxuraan dina lajj. non yow da nga lajj non waxuma ci man <laughs> man kañ raw naa. bi ma ko bi ma ko defee ba mu am rek laa raw. ok ok yow kon yow. wutoo ci woon xaalis wutoo dara. lu ma siy ut wàllum diine ok lu ma siy ut xaalis. looy ut xaalis mooy li am fay. mais presque na gars yi nag kon sonal nañ la de. def ñu ne da ciy dóor. Eh, bi dañ ko bàyyi man déggoo li ma lax ay bonus la yi may xaar yoo may xiyaam ma. li jëm si yàlla nga ñëw di ma kar dama lay bàyyi borom bi ba boobu. loolu amul fii amul wax du ma si saa waati tey mooy dernière fois bu ma si wax. Mm-hmm. Ah, liñ doon leeral sax faf moom moo ko indi leeral ko jaruñu si dem lu ah, bëri ah, duñ ci xuus parce que amul sens le plus important mm-hmm. mooy man j'organiser un événement religieux mm-hmm. yàlla dogal na tey jii mooy seul événement religieux moo sauvé moo Aziz Ndiaye daf moom message na ma événement bi ah moom rekk a am donc t'as sauvé l'honneur mm-hmm. kon donc loolu nga ci bëgg. am na ñoo xam ne seen événement yi ñu doon organiser taxoon ñuy xeex événement bi pour seen événement mun a pàccaaral. ñu mun si euh, ah mais loolu la. ñu mun si def lu la neex parce que defuñu te yàlla tax kuy def te yàlla tax. doo baare keneen. ñu wax kan moom wuy si wul ñu baax a fa newoon. <laughs> ginne yaay fa woon nit yu waaw doo ma bàyyi. non presque may rey bi waaw. Ah. ñu fa newoon rek il faut. ma ne. qualité. tey jii soo fa woote woon rumbax maa bu rëy ay góor jigéen bokk si foo jëm bu yoowee xiyaamee foo koy waxee sant nañ si yàlla bu baax ñooñ fa ñëw ñoo fa war a ñëw sama yaay ngi fa woon sama papa ngi fa woon. Ah. Aliou Ndiaye ngi fa Mame Boye Diaw yónnee na. Mm-hmm. comprendre nga dugal si loxoom ku mel ni Alassane Tall ñooñu baax ñooñu ñoom Rami Boiro. ñoom Ndiku Thiou mais defal nànk. Mm-hmm. ñoom Tata ah, ñooñu dañoo baax Cheikh Salim Bokum. Black mm-hmm. Rose. Ah, Modou Lo depuis fële ñu siy sonn ñooñu fa nekkoon doy nañ ma sëpp clim yi dafa sedd ah, jànkatu alxuraan yi plateau bu rafet amul ay oh, pëccëxoo macha allah amul pëccëxoo naa la envoyé lien bi nga dagg si wane xool ah. keroog foofu saal bi dafa sedd guy lu ma mës a organiser si àdduna rek looloo ma si dàqal oh, keroog damaa jooy ba kontaan damaa jooy ba xa sentir ni lu bon lu nekkoon sama xol sax lu gën a bon li sax génn na lu si desoon peut-être su dee amoon na. waaw ah, ah, alxuraan de dañ ko déglu muy raxas seen xol yi. Ah, waaw tëgg naa lu ne su ma tëggee dañ may ñaan billet dañuy ñëw fees del jënd def naa recette ay millions yu bëri si ay événement foofu même lieu bi. Mm. bii dama ko defoon maye ko gratuit. Mm. nga maye gratuit. gratuit ñi fa waroon nekk rek jullitu yàlla yi wóor ñoo fa nekkoon. waaw yàlla bu yoowee xiyaamee nen bokkaat jotaay noonu ñi fa nekkoon macha allah macha allah <laughs> Prince nga wax fi sànq sànq dafa benn wax boo fi wax nga ni da nga bëgg a incha allah coronavirus bi ñaan yàlla mu dem bi su demee eh, da ngay ñi nga xam ni ñoom ñooy sénégalais def benn journée bu mag ñu gis ni mojja ak caat ñoom nga njëkk a waxal armée ak fëgg la est-ce que boobaa grand combat bi ña nga mentiroon ñoom nga mentiroon. man du ma mës a am mbër yi problème yooyu ay fëggala yi ay armée samay xarit lañ damay morom lañ dañuy communiquer. Mm. du ñu am problème si ay kii mooy njëkkee bëri. Mm. kii non galaa la ñuy def bu boobaa. Mm-hmm. galaa nag galaa la. Mm-hmm. mais en général dañ dañ ne. Mhm. carrément ñu nga ñu nga. bu boobaa ñu def jeu concours rek ku say supporter ëpp SMS yu ñu kii man je suis un marketingien de métier. ku say supporter ma gagné si xaalis tuuti sax <laughs> message bu nekk téeméer. ku ëppale ah waaw ku ëppale ah ok wala francs Eh, am na sax am naa serveur des man. am naa numéro serveur. léegi kon ku ci ëppale kii rek nga dem. rek nga dem grand combat. wax bi amu fii de. suñuy contrat leer na lépp système la pas système ay système mu teg xel. non non dañuy ut xaalis. on nous considère comme des privés. Mhm. nous assumons ces positions de privés. Mhm. lu xew nag ak lu mën a xew dinañ ko liggéey te ko ci yoon. Mhm. waaw mais ku ci nekk li nga moom ngay jël. ku ëpp mbooloo. nga jël grand combat. beneen bi mooy du ay mbo wax ne maa ëpp mbooloo. da ngeen ah, waxal say supporter nga def ay SMS. Mm-hmm. beneen si yow. Mm-hmm. beneen si jaaxal nga ma. du ma la jaaxale yaa ma gën a jaaxal <laughs> ak sa maquillage bi. Prince <laughs> euh, beneen bi mooy. Mm-hmm. ñu gis ni tamit euh, yéen euh, association des promoteurs da ngeen a waxoon ni comme espoir yi doo leen ci passé te lu ëpp man musuma fekkee jotaay bi ñuy wax yow. ok musuma ko fekkee. loolu te promoteur association des promoteurs bi ma bokk. Mhm. non. da ngeen espoir yi ah yow presque problème boobu amoon na ah. comme genre gis ne Modou ak Thiat li loolu moom li ma fay mbërit moom duma ko mus toog. di wax ndax dama mais parce que dañoo yow ñaata ngay fayee ko wasaare. non xoolal du ko mus a wax non <laughs> yi dañuy dem waxaare seen sëriñ. Ah. donc doo xam lan la ñu wax ak sëriñ bi mm. nga ñëw wax seen kase sonal nga leen parce que peut-être nekkul loolu ñuy am yëpp dañ ko bëgg jox sëriñ bi am nañ waajur am nañ avenir comprendre nga moo tax ñuy éviter di wax ay cachet mbër yi uh-huh. waaw mais li nga fay mbër bi moom loolu moom promoteur yëpp a si libre uh-huh. promoteur bu nekk li nga mën yéene ko sa xol fay ko mbër bu la neex mbër yi mérité leen million parce que ay noble lañ tam uh-huh. dañ koy ax mbër jàmbaar la bu jëkk ba euh, suñu bayaan ba pare dañuy si dëkk yi comprendre nga fu làmb sosoo mooy Fatick comprendre nga Diofior Niodior yooyu ah ba Casamance Fuladu parce que làmb dafa bëri Fuuta dafa bëri làmb tukulóor dafa am joolaa séeréer dañ doon dajale lu ñu bay ku si nekk jël si li nga bay ñëw teg ko ñu dajale loolu mbër bi jëloon organiser woon ay tournoi ñu ko jëloon ñooy doon buur ñoom lañ ko doon jox dañuy am dund at ba pare ku dàq si dëkk bi ñoom lañ ko doon may soxna donc buur moo koy am donc mbër mérité na am lu nekk mais mbër bi nag na gore rek ngor buur gor moo koy doon te gore di amul fàtte moo am ñu bàyyi di fàtte hmm. am na loo fi def waaw loolu dafa dëgg la ndax ñu bari sax ñu ngi doon wax prince day yàq mbër ndax prince mooy mbër mooy war a fay ko 500000 mu fay ko 1 million cent temps ya ngay yor la woon temps yooyu temps yi nga yor. kon rek gaa yi dañuy dóor rek. ah Prince kat nag yow ndax yow Prince yow yow lu ñu mën a concevoir mooy dañ fay génne kirib gars yi ne da ngay dóor ñu gis ni euh, nu tëdd loo def fan yi mam booy jaaw mam booy jaaw borom borom nan jëm ñaajo city borom ah borom bëri nit yu baax. waaw léegi mam booy jaaw ak borom oh. jëm ñaajo siti nag. jam ñaañ lekk cité kooku sama frère la sama xarit la. maa euh, Marcel Diagne. waaw waaw la dóor foofu yaa fa gis dóor. Ah, ren na sa jëw yi c'est un jeune boo xamante ne dafa nekk si dëkk bi dem def formation comme normal. Mhm. dem jàngi. jaar Maroc dem Canada jàngi mais li mu jàng ba pare après Dubaï la nekkoon mhm. mais dafa jël li mu jàng ñëw bëgg ko exploiter si dëkkam. am courage ambitieux. Mhm. bañ ko boole wax teg lu mel ni projet bu mel ni Diamniadio Lake City président am si moom confiance mais loolu nga nga nga nga participer si communication am qu'est-ce que ça fait ana si ñaaw. kon yow gars kii rek mais du question dóor. ana dóor yow jour boo amee occasion jàkkaarloo ak ñoom nga laaj leen ndax dóor na na si fii dañ borom xel kenn dina ko dóor ana dóor foofu ah lan mooy dóor. Mm-hmm. lan mooy dóor ana dóor foofu. non dañuy def business rek mun naa am naa droit sax ut xaalis si ku may tuddee sama événement parce que événement bi je suis dans privé te sponsor amatul mais loolu ay kii la ay apport la war a doon parrain dañu war di participer si làmbi bu baax bu baax sax parce que lu ñu ci am leneen la parce que communication dafa am solo si société wala si nit koo xamante ne Euh, da nga nekk si benn affaire boo xam ne dañ ko war a promovoir mooy tey par exemple Marcel Diagne dañ ko war a tuddee drapeau parce que dafa nekk si benn affaire projet bu solide bu mel ni Diamniadio Lake City. ok Mame Boye Diao c'est un politicien il a mm-hmm. besoin de qu'on communique sur sa personne. Mm-hmm. que ça soit de la communication boo xam ne dëgg la wax positif na rek. Mm-hmm. xam nga tey duma ko publicité waxal loo xam ne def ko dafa def si coronavirus bi participer fu ñu dëkk Kolda. Sa Thiès euh, ak kii Yékini Junior foo ci toll combat bu taxawul moom mënuma see wax. mais après xam nga Sa Thiès ak Yékini Junior maa ngi si combat bi. Mhm. tout va bien. Mhm. yàlla na ko yàlla moo tal. mais xam nga Prince tey dañoo jël. Sa Thiès da nga may déglu Prince. Mhm. dañoo jël Sa Thiès. bi nga ko jëlee lum la. waa xam nga yow tey da ñoo waxoon ni carrément bu fekkee Sa Thiès sax. mois de juillet ci kattanu yàlla. l'homme propose Dieu dispose. non déglu ma rek corona est là non déglu ma déglu ma déglu l'homme propose Dieu mais la dama lay wax woon ni mois de juillet. bu neexee yàlla bu neexee yàlla. waaw neexut ndax corona ngi ok kon combat boobu presque. non combat bi kat dina am. incha allah. waaw bu fekkee ni que ñu déggoo déggoo nañ de ba fu ñu toll nii te desut si man. pour mu taxaw mais Sathiès nee na yéen ñaar euh, kayit liyeewu leen du dara lu leen liyee. wax rek moo leen su taxawee nag kañ la ñu kayit liyee. on s'est donné dañu jël engagement ma jox ko ko mu jox ma ko donc foofu kañ am na lu ñu liyee. pour combat bi matérialiser wu. dañuy jot avance ñu signé. mais nag dépendrewul si ma. mais combat bu ba léegi yaa no man pare naa. pare naa si ñoom lay des kay te déggoo nañ dafa am ay réglages yu des ci seen kii rek. Mm. beneen bi mooy ñu ne Prince ba mu ciblé Sa ak Yékini Junior yàgg na. Mm-hmm. Prince dafa am pro dafa am koo xam te dafa nekk ci ginnaawam. Mm. ne ko Sa Thiès Yékini Junior kese wala parce que da nga bëgg tëgg Sa lu war man maa bëgg combat boobu rek. ok point loolu kese la du leneen. ok kenn nekkul si ginnaaw. mais yaa bëgg lool man maa bëgg combat ok leer na Briss. Mhm. lamb ji instant bi gis nga promoteur ak safurla CNG. Mhm. ak arbitre gis nga ni sax mën nañu wax ni avant feebar bi am sax wax jooju moo ko teg ba tey arbitre yi di kaas li nga xamante ni moom mooy assurance. feebar bi wax moom looloo ko tëj yàlla nañu juboo muy tijjiwaat ko rek feebar bi jeex. moom moom mënu ma see waxati dara loolu am na lu ma si jotoon wax te. mais arbitre ak waa mais fu nekk nii corona lañ tal yàlla nañu yàlla génnee si corona. corona lañ tal mais yow làmb nga. acteuru làmb nga tey eh, prince am na loo xam te gis nga ko balaa ñuy wax si làmb fu mu nekk nii man làmb yi ma tëgg yëpp dama ko teg si suuf. corona la ñuy xeex. Mm-hmm. su corona jeexee ñu mën a wax si ay. mais am na benn message boo leen war a jox pour gars yi mën a dal sax mooy message bi mooy. juboo rek defar xol yi boole xel yeeg xol yi juboo di sangu ba set di ñëw Bamba design mu ñu jaay yëre yi rafet ak dàll yi rafet 415 70 01. looy tàggatoo. tëj naa ko sant yàlla rek bu tedd bi di la gërëm di gërëm sama waa ji baax ji ah di bas bas ñu ngi koy gërëm di gërëm waa wasaare yëpp. ak ñëpp ñu koy seetaan. Modou Lo yow laa koy laaj yow mi journaliste di dem fu nekk. ana Modou Lo sa mi journaliste laa koy laaj ana Modou Lo <laughs> foog nga bool si Modou Lo daal. <laughs> Bamba design suma frère la. mu ngi fi Yasu Faar. képp ku bëgg lu baax man lépp lu may lépp lu may sol non danga maa fay yow. après dangay fay fayoo ma de. après dangay fay fayoo ma de. dangay fay après. waaw Bamba design 415 77 415 70 West Soufar fii si booru station Shell bi. Mm. jeune la. comprendre man jeune rek laa laa laa sawar si ay mbiram. liggéeykat jeune la mënoon na def lu leneen mënoon na làqatu si ginnaaw clavier di xasteeka di commenter defu ko. dafa ñëw teg benn affaire muy société ay nit di si liggéey weer bu dee ñu fayee ko am lu ñu jox seen waajur. ba pare muy def qualité lu baax xoolal lii. ba si daal lépp BMB la. jigéen ñeeg ñëpp day leen di sonal. baba après dinañ si mun nga ñëw sax ñu la fi gërëm Sénégal yëpp ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm. yàlla may ñëpp wér. Mm-hmm. feebar bi jeex si àdduna. Mm-hmm. Hmm? jeex si àdduna ñi nga xam ne ñoom ñoo yor nombal tànk nekk si di liggéey ku mel ni ministre de la santé c'est sûr que sonn ah médecins yi dañ leen di fàtte. Mm-hmm. médecins yeeg ba si kiy dawal ba si euh, bran ñuy yor brancard yeeg. comprendre nga docteur yeeg infirmière yeeg ñëpp yal na leen yàlla suturaal. yal na leen yàlla may xolu muñ ndax hôpital dugg fa rek temps bi nga fay def rek comprendre doo def lu dul yàqamti génn fa ñu fay yendu nag ñu faj njët yi di leen opérer. Hmm? di defal gars yi oxygène fu mu nekk nii di faj ko corona. ak ñu ñu siy ragalee corona. Hmm. ñooñu yàlla leen yàlla suturaal. Hmm. yàlla na leen gën di bàyyi xel. suñ jógee si lii. ni gars yi di amee ay cité ñuy yokk defal leen promotion di leen dimbale ñuy def defi seen formation nañ ko ne Sénégal yëpp waroon nañ mën a ibbi comme Sénégal euh, Touba ca kanam ni mu amee waroon nañ ibbi benn compte ku si nekk jël sa cent franc sa deux cent def si ñu tasaare ko médecins yi parce que mérité nañ ko mm-hmm. waaw mérité nañ ko ah, de tenue yi nekk si tali bi te duñu sax protégé wu bu baax mais gars yi dégg luñ ci wax dañoo gisee mais du positif la man su ma sañoon bokk suñ su ma wóoroon ni ku tëju sa kër lekk. Hmm. confinement général la ñuy dem même bu dee 15 jours la. parce que mooy solution. ba hmm. pare ñu pulvériser dëkk bi pompe dëkk bi. Hmm. loolu rek la ñaan yàlla def ci réew mi jàmm. kon corona daal na fi jóg rek. na fi jóg rek na dem. ndeysaan am na solo ah prince mu nekk koo xamante ni toujours égal à lui-même mu nekk ku baax nekk suñu frère nekk suñu xarit lépp luñ ko bëgg rek dañ koy yombalal moom it di ko ñaanal yàlla. moo xam li bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barki Seydina Mohamed yàlla aar ko muccal ko wax dëgg yàlla ndax ku baax la di wax rek kon li muy wax rek na gars tàppe xol yi raxas xol jaamu yàlla suñu borom ndax moom moo fi am ndax nee naa leen c'est pas trop tard gars yi nañ tuub jéggalu moo fi am ah, moo fi am parce que feebar bi nekk na loo xam te ni daal kenn ku nekk après boo toogee rek di nga xam ni yàlla am na lu mu lay wan kon donc am na lu ñuy woon rek nañu profité ci occasion boobu noonu mu nekk loo xamante ni lu sincère si ñun du nuyuwaale nag parce que koo xamante ni sama benn yaay boo xamante ni coronavirus bi da ko ragal ba tellement que toogatu la sax ak ñun foo gis mi ngi masque muuma noppi muy suñu maman Astou Soumaré di ko ñaanal moom mu gudd fan ak wér ak ak naan ko rek ci kàttanu yàlla ndeysaan yow sa njaboot tax lekkatoo naanatoo ndax yaakaar na ni sax bu ko déggee sax ndeysaan dugg na ci njabootam mais di la ñaanal yàlla rek naan la xol bi nga am yàlla na la koy yàlla na la yàlla fay yow it yàlla aar la ci barke Seydina Mohamed ak njaboot gi yëpp waaw ak ñëpp daal la ñuy wax rek di ko béggewaat bu baax a baax di béggee Bassirou Diouf l'infatigable ndax ni mu lay wax rek nee naa la yow su ma nee laa acca rek nga ne ma acca sans nag des questions ah, fu ñu dem la nang acca nga ne ma acca di la ñaanal rek yow jàmm sono la yow yàlla may la gudd fan ak wér may la soxna su baax waaw boo xam te ne daal moo lay toppatoo di la di la ko ñaanal daal ndax instant bi xam naa ne sonn nga <laughs> di wax gars yi rek ni lañ leen indiloon naa prince lañ leen indiloon ndax yéen ma ko laajoon ma indil leen ko mais tey prince daf maa daw ndax loo ko wax mu ne la corona bi loo ko wax rek mu ne la corona bi mais nag xam naa dinañ ko jàppaat incha allah mu corona bi jeex rek jàmm ak salaam amee internet dinañ leen indiwoon wasaare lamb ah, Fatima Kese wasaare làmb kese di jox gars yi di daje incha ba fekk jëli mbër wala promoteur wala amateur wala képp ko wala amateur wala képp ko wala amateur wala képp ko